lan la borom ñaari tur yi di waajal askanu Sénégal lan la borom ñaari tur yi di waajal waa Kaolack ndax jamono bi seen xel dalatul ñu bëri ñu ngi commencé di deltu ginnaaw ginnaaw ba ñu jëlee seen mbokk taal ko ci digg réew mi ñëpp di ko waxtaanee ban stratégie la ñu bëgg teg ngir jaxase waa Sénégal ak waa àddi ndax commencé nañoo am doole ci réew réewaan yi loolu lépp dinaa ci ñëw balaa may àddu ci waxtaan bi nag maa ngi am mbégte ak contentement ci ànd bu rafet bi nga xam ni yéen a koy ànd ak ñun saa su nekk dee leen wuy di abone ak bés cloche notification bi di partager suñu ay vidéo ñoom ñu ngi jël benn stratégie ngir yokk ñun nag stratégie bi ñu jël mooy bu ñu taalee benn borom ñaari tur keneen ku gis ne sa morom def nañ ko nii di nga deltu ginnaaw ci li nga nekk xam ne la nga nekk caaxaan la du dëgg du yoon te alali àddina wala bànneexu àddina jaru ko fi kon yow mi nga xam ne yaa gis jëf ji même si boo ko dee ñaawlu bul ko fësal en publiquement di attaqué waa Kaolack ñoom ñuy gën di am doole di wan ne que askanu Sénégal li fi xew am nañu si ànd am nañu si àndul képp koo xamante ne gëm nga sunu borom te xam na sunu borom daganalul borom ñaari tur yi mbir mi àndoo si beneen bi nag bi may wax mooy waa Kaolack leçon la ñu joxe que beneen koo xamante ni mu ngi ci lobby bi que bés bu waa Kaolack li ñu def beneen dëkk tamit mën nañ ko def xeex bi lii la képp koo xamante ne mën nga si partager yenn vidéo yoo xamante ne ñu ngi sensibiliser di xeex borom ñaari tur yi lépp loo mën ci partager nga na nga ko partager ñoom ñu ngi dugg ci ay commentaires di encourager ñeneen ñi nekk ci milieu bi yéen tamit dugg leen ci commentaire yi di encourager jeunes yi nga xamante ne ñooy xeex ak boroom ñaari tur yi lenn nag moom moo di nañ ko bàyyeeg sunu ustaas ak sunu sëriñ si ak képp koo xamante ne sunu borom may na la xam-xam nga nekk ci réew bi ak nga nekk ci bitim réew ngay sensibiliser ndaw yi nga xamante ne xam nañ ni borom ñaari tur yi du dëgg du yoon li waa Kaolack def bul ne man maanu naa xewut suñu dëkk déedéet borom ñaari tur ñu ngi ci dëkk dëkkaan yëpp. te li xew lag mën na xew ëllëg beneen dëkk te ñooñu tamit boobee jëf lañu jëf bu ko defee képp ko xamante ni mu ngi si lobby bi di nga gën a defarwaat sa toogaay di nga gën a xamaat yow yaay kan pour ñi nga xam ne ñooy dugg ci commentaire yi nag di leen may doole ay naaféq ngeen yéen ak ñoom yéen a ànd ndax tey jii boo nee man gëm naa suñu borom te suñu borom daganalu lii nga ànd ci ak ñoom gëmoo suñu borom bànneexi àddina fii lay yem àddina du kër lépp loo fi gis dafay jeex dañu ne lu waay def boppam kenn deful kenn dara bëri na ku waay nit koo yee ba mu yeewu nga bàyyi ko mu nelawaat yee ba mu yeewu nag mooy comme li xew nii nga xam ne que lii baaxul ëllëg ci biir nga dem nekk ci ak ñoom dara gënul neex ci àddina nga dund ba faatu sunu borom xam ne que yow mii nekkoon nga ci limu bëgg say morom ak say mbokk waajal la defar la suul la ñëpp di gis sa bàmmeel xam ne fii la ñëw di la ziar ak a ñaanal léegi nag yow mi nga xamante ne nag yaa nekkoon ci àddina yor xaalis yor alal bu dul jeex yor ay teraanga te nekkoon lu neex suñu borom lu dul nekkoon ci biiru borom ñaari tuddi faatu amoo bàmmeel loolu dara gënu koo metti alali àddina du dara lépp loo fi gis dafay jeex ku nekk booy ñaan da ñaan mujj gu rafet lii nag. bokkul si mujj gu rafet boo déggee ñu naan yàlla na la sunu borom may mujj gu rafet mooy nga faatu ba noppi ñi jël la jébbal la sunu borom ñëpp ñëw di la ak a ñaanal ci barab bi nga xamante ne dal di fi ngay tëdd lii nag moom du mujj gu rafet ndax nga faatu amoo bàmmeel benn ñaar ñëpp gedd la suuf si gedd la asamaan si gedd la ba ñu taal la nga doon dóom dara gënu koo metti te bu doon taal bi fii rekk la yem déedéet dangay delloo delluwaat sunu borom mu gën laa lakk gën laa xamal ni que la nga nekkoon du noonu imaam yi nag ku ci nekk wala ustaas yi mën a àddu ak wax ngir lan taxawaay lañ mën a mën a def ngir borom borom ñaari tur bu faatoo lan lañu ko mën a taxaw ak lan la suñu borom dégle su moom ku ci nekk tamit nañ ñëpp génn ndax xeex bi ñun ñëpp ñoo ko bokk xeexaluñu ma sàmba xeexaluñ ma dem ma ku ci nekk sa bopp ngay xeexal ndax ëllëg boo dee góor ñan nga yàlla am kër di ko diriger boo dee jigéen tamit am nga doom lii bokk xeexul ñoom dañu fiy gën a am doole seeni ay doom wala ñun suñu ay doom ñooy màgg di gis ñoom ñoom lañu nekk ni dëgg du yoon dara gënul metti suñu borom def la góor nga ne doo doon góor leneen ngay doon dara gënul suñu borom def la nangam nga ne doo doon nangam la sa des ngay doon ak tamit nga ànd ci ak fier nga ànd ci ak ñàkk jom dugg ci ay commentaire di xolo ak a xeex te yow leer na ni la nga nekk suñu borom àndu si bu ñu waxee ñi ne nañ maanu bu doon la ñuy def ñoom ñoo koy def seen biir nga ne waaw mais la ñuy def dañ ko ne fàng lu ne fàng nag ci pénc mi lañ koy waxtaanee ku ci nekk wax ci sa kàddu doo nekk ci àddina sunu borom ne lii bëgguma ko nga ne ci lii ngay nekk ba keroog ngay dee nga jàpp ni dañu lay sang defar la suul la nga bokk ak nit ki nga xam ne dafa nekk ci àddina di reyante di jaam yàlla suñu borom di am ay mettit suñu borom di ko teg ay mettit muy nangu di nangu di nangu ba faatu suñu borom sellal ko yow ak moom nga ne yéenay bokk jëf yéenay bokk fi ñu leen denc yéenay bokk ni ngeen di dundee yéenay bokk ni ngeen di faatoo yow ak moom am na nu muy sax ngeen ne yéen yéen a gën a baax ndax seen ay alal la ngeen koy maye te li ngeen di maye doon na alal gu salte boo xamante ne kenn mënu koo wax mbokk yi maa ngi jéggalu bu dee kàddu yi am na lenn lu si dëgg xol la ñu waxee ndax lii xew ñun ñëpp ñoo ko war a jël def ko suñu xeexu bopp lii xew képp koo xamante ne àndu si ak ñun naa féq nga te lépp loo xam ne boroom borom digle na ko nga ne si nga nekk nekkoo si ndax sunu borom amul fenn foo xamante ne dagale ne fa boroom ñaari tur yi daf koo sib doon lu gën a salte maa ngi jégalu bu baax xol lañu doon waxee nag di wax tamit ngeen wéy di abonné ak di partager suñu ay video di ñu gën a may doole bu baax a baax a baax a baax a baax ndax tey lii buñ ko xeexee sagu senegal la sagu Afrique la waaye sagu l'islam bi yëpp la ndax beneen réew bu ci gis lii di nga xam ne que carrément li Sénégal def ñu war nañ ko mën a def li Sénégal def ñu war nañ ko mën a jëf ngir xeex borom ñaari tur yi xëy na nag fii ba guddi mooy doon waxtaan bi boo duggee ci whatsapp bi boo duggee ci Instagram bi boo duggee ci YouTube bi ak feneen ak feneen loolu yëpp mooy doon débat bi ñoom tamit lépp lu ñu mën ngir xeex wala lépp lu ñu mën ngir sos dinañ ko def ngir gën a mayaat seen doole jaxase Sénégal ak li nga xamante ne moom moo di waa àddina ndax Sénégal am na si ñenn ñoo xamante ne jàpp nañu ni borom ñaari tur yi ñoo ko yor ñoom ñu ngi bokkaale Sénégal kenn moo ko yor muy Sénégal kenn moo ko yor muy sunu borom ñoom bu ñu jàppee ni que ñoom ñoo yor àddina ñu ngi nax seen bopp. buñ ko yoroon duñ mës a faatu suñu boyo suñu borom moo yor li nga xamante ni moom moo di àddina xool nag la ñuy waxee moo tax jamono bi lépp lu dëkk ci kàddu gi ñu ngi koy tuub bu baax a baax a baax di leen wax ngeen wéy di abonné di rafetlu tamit bu baax ànd bu rafet bi nga xam ne yéen a koy ànd ak ñun saay su nekk bés bu nekk ku ci nekk mën na wax xalaatam dugg ci commentaire yi wax ne lii ak lii stratégie la ngir ñun ñi gën mën leen fee jële wala sax buñ leen jëlewul ci réewum Sénégal ñu wàññee ko fi bu baax a baax a baax a baax di ñaanal ñi nekk si jafe-jafe sunu borom teggi leen ko ñi nekk ci prison yi maa ngi leen ñaanal sunu borom génn leen jàmm ñi nga xam ne dañoo am soxla yàlla na sunu borom faj seen soxla faj aajo jaam yi biir ak biti jàngeen jëf